waxtaanee waxtaanee mesures yi nga xam ne jël nañ ko jëm ci accréditation yeeg yooyu waaye balaa loolu Seydou dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet Tivactu TV yi. asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mhm. Euh, di nuyu mbokk yi di seetaan Tivactu TV mhm. yëpp. Mhm. di leen jaar di leen ndokkeel. di leen masawu coono bu baax a baax. Euh, di leen nuyu waaye di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am Serigne Babacar Sy Mansour. xalif général des Tidiane. Mhm. ñu ñaanal ko gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. ñaanal ko yàlla naal yi mu naal ci kër maamam yëpp mu motale ko ci jàmm incha allah. Mhm. Euh, di leen ndokkeel bu baax ci weeru tedd bi ñu nekk. Euh, weeru mbégte la weeru bànneex la. rawatina ci dëkk bu tedd bii ñu nekk. kon jërëjëf kontaan nañu. ñu ngi leen di mhm. siyaar bu baax incha allah. <laughs> Seydou comme ni nga ko waxee weer wu tedd bi gàmm gi ku wax gàmm wax communication yéen ngeen bokk ci cellule euh, mu mel ni ñaari fan wala benn moo ci des ana au niveau de la cellule fan ngeen tollu ci jëm ci communication beeg accréditation yi. waaw xam nga communication moom. Mhm. Euh, liggéey liggéeyu euh, avant la. Mhm. pendant. ba après. c'est ça la communication ci liggéey boobu lañ nekk. fu mu nekk nii ñu ngi ci avant bi avant bi nag ñu ngi ci depuis euh, pratiquement plus de trois mois ñu ngi ci liggéey. Mhm. ci aspect yëpp nag. Mhm. donc ci matukaay yëpp euh, ngir rek euh, d'abord mu nekk une communication boo xamante ne dafay dafay am fu mu tegu. Mhm. donc rawatina sur les thèmes yi nga xam ne moom lañ définir. parce que nag suñu sëriñ mi nga xamante ne mooy suñu xarit jiite la cellule Zawiya Tidiane de sëriñ Abdoul Hamid Sy. donc. moom dafa xam communication donc ba tax euh, lu am solo rek la ñu ciy digtal mhm. donc moo tax nag euh, li ma wax mooy avant bi euh, ñu ngi ci donc ci lépp li nga xam ne matuwaay yi ñu war a jël yëpp par rapport ak d'abord communiquer mais par mhm. rapport aussi la prise en charge de la presse mhm. bu ñu waxee prise en charge de la presse c'est c'est l'hébergement c'est la restauration c'est les accréditations donc euh, yooyu yëpp daal macha allah fu mu nekk nii mën nañ jàpp ne yemb na. Mhm. Euh, c'est vrai que euh, le les à cent pour cent. Mhm. Euh, xëy na yàlla rek moo ko mën. Mhm. mais incha allah dinañ ci def daal suñu kéemtalaay kattan ba. mission yi ñu assigné. Mhm. ñu ñu taxaw ci ba yéen ñi nga xam ne yéenay tas taskatu xibaar yi. Mhm. ngeen nekk ci dans les meilleures conditions de faire votre travail incha allah. Mhm. waaw ku ne euh, gàmm gi souvent dañuy bu at bi njëwee dañuy xaar yeneen coppite yu bees yeneen innovation tey jii bu fekkee am na ay innovation ay coppite yu bees pour gàmm gi lan la war a doon. alors euh, gàmm gi ren quand boo boo seetloo bëri na innovation. surtout ci wàllu euh, communication digitale bi. Euh, parce que bi yoon euh, cellule Zawiya Tijaan yi c'est vrai que yàgg nañu am ay pôle production mais bi yoon mhm. dañoo dañoo jóge ci structuration bu bees donc ñu daal di définir ay ay ay ay pôles yu bees yoo xamante ne euh, ci ci ci loolu lañ tënku. Mhm. donc ci ci ci ci ay département département bi ñu tënk ñun muy département communication digitalisation. Mhm. ak événementiel. donc surtout pôle digital bi def ci liggéey bu am solo. Mhm. Euh, ren sax boo gisee campagne d'affichage bi am ci gàmm. mun nañ mhm. jàpp ne musul am. waaw c'est la première mhm. loolu loolu loolu bokk na ci innovation de taille yi nga xamante ne indi nañ ko. mais surtout aussi avec l'apport euh, comité scientifique bi. définir euh, thèmes yi définir ñenn ñooy waxtaan ci plateau yi. donc yooyu yëpp ay ay yoo xamante ne la. ko en bu baax a baax. ci li nga xamante ne mooy kii donc mu nekk ay ay innovation yu bees yoo xamante ne. c'est des innovations de taille. Mhm. Euh, mais ñu jàpp aussi yooyu yëpp kanam la jëm incha allah. Euh, ci cellule Zawiya Tijani incha allah. Mhm. bu ñu demee ba si gàmm gi souvent gis nañu jouru gàmm gi problème presse bi day posé wu cette année si yan ngeen mesure ngeen jël parce que doon nañ dégg souvent ñuy wax euh, bëggoon naa sax di kaat tournée bi ngeen doon def avant sànq yaa ngi koy wax gis nañ ngeen dem fu mel ni RTS fu mel ni 2S seen majeur yooyu l' objectif c' était quoi exactement. dégguma l'objectif lan la woon bi ngeen demee seeti ñu mel ni RTS 2S avant ah. gàmm gi waaw xam loolu moom c'est c'est c'est des visites traditionnelles qu'on mhm. qu'on fait tous les années mhm. cest dire c'est toujours bon d'aller voir ces partenaires là mhm. de s'enquérir de leur situation mais leur donner aussi des orientations donc boo demee di nga leen waxtaan ak ñoom nga déglu leen ñu wax la ñoom lan mooy seen i euh, gàllankoor euh, lan lañ bëgg ñu assister leen ci lan lañ bëgg ñu taxaw leen mais ñun aussi ñu wax leen lan ñu bëgg vraiment ñu ñu ñu ci nan lañ bëgg ñu communiquer donc mu nekk collaboration boo xamante ne day nekk. lu lu lu lu am solo loo xamante daal lépp lu ciy jógee koy long mhm. euh, yooyu loolu rek c'est juste pour harmoniser les choses mhm. euh, vraiment mu nekk prise de contact boo xamante parce que aussi il faut il interlocuteur direct mhm. donc partir de ces visites ñoom ci la xam kan mooy seen interlocuteur euh, ci la xam vraiment bu ñu ñëwee Tivaouane nan lañ lan lan ñun ci lan lañ leen mën a taxaw donc voilà donc nekk le but quand de ces visites là mais bokk na tamit jafe-jafe jëm ci cérémonie officielle bi mhm. ñëpp xam nañ ni bi yëpp mënuñ fa xaj cette fois ci naka ngeen nar a doxale ba ñi fa mën a dugg dugg ñeneen ñu tamit ñu am ñeneen nuñ liggéey te teewul ñëpp dinañ liggéey ci cérémonie officielle bi alors euh, il faut dire que comme ni nga ko waxee la cest quand même euh, voilà elle s'agrandit du jour au mhm. jour mmh, mmh. par exemple euh, cette année on a eu plus de 700 demandes d'accréditation cette année ci cette année mmh. plus de 700 euh, c'est compliqué. Mm -hmm. Donc il faudra trier. Mm -hmm. Alors quand tu de trier, il y aura des frustrés, des des mhm. mères et tout ça. Mhm. Donc avec euh, l'abondance maintenant des, des, sites internet, et des mhm. en ligne et tout ça. Alors, mais néanmoins quand même, nous trier, nous regardons quand même. Euh, vraiment euh, nan lañ koy maximiser. parce que 700 accréditation boo ko joxee dootoo liggéey. déedéet imagine tey la visite du président bu fi 700 euh, organes nekkoon. c' est compliqué. alors cérémonie officielle bi. Euh, ren innovation bi day nekk day bokk ci quand même euh, on va réduire le maximum et je dis quand je dis le maximum d'organes. Mhm. c'est-à-dire organes yi accédé ci salle bi. Mhm. Euh, bu matee juróom ci lay yem. Mhm. mais en retour on va mettre en disposition des signaux yoo xamante ne c'est pour que képp ku bëgg a reprendre cérémonie officielle bi nga reprendre ko. cest à foofu la àdduna toll tey. on tend même vers tey pourquoi pas la cellule. am matériel def production boppam. jox si Parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Mmh. Tu mhm. regardes un, match de football qui est partout dans le mhm. monde. Mais c'est une, benn production la ñëpp ñu diffuser. benn production la. Mhm. donc ci loolu mooy mais tey nga teg sans caméra fii xam nga pëccëxoo micro yi kii donc doo sax mais bon ñu ngi ci ñu ngi ci yooyu on est on est dans ces dans ces trucs de développement là parce que quoi que l'on dise Gamou Tivaouane c'est un continu. mooy li may wax bésu Gamou Tivaouane boo tegulee Gamou Tivaouane kenn du la Maintenant, on continue, euh, voilà, ça se vend, ça se, euh, on, on, on, peut le donner gratuitement, mais Gamou Tiaon, c'est presque bien comme mhm. donc mais nag euh, ñoom tamit ñu gën a góorgóorlu def ay effort xam que ne ñoom ils sont venus là pour euh, pour un but bien déterminé ñun en en notre en retour ce qu'on ce qu'on peut faire c'est juste leur faciliter seen liggéey. Mhm. incha allah donc cérémonie officielle bi daal nañ jàpp ne. Mhm. signal moom moom la ñuy joxe incha allah. Mhm. dafa mel ni ren vous avez pris les devants est-ce que ça dire que ni daan am jour gàmm nit ñi toog fee maison de la presse di hébergement accréditation ren dafa mel ni loolu moom taxu ngeen ba loolu du am. waaw écoute xam nga boo nee boo nee boo nee cest à la problème du ci am wala kii du ci am. Euh, loolu peut-être ce affaire de la parce qu'il y aura toujours des, problèmes. Mm aura toujours des gens qui vont venir pour te dire que dama bëgg hébergement. Mm alors que fekk hébergement jeex. Mhm. loolu moom allah kulli alin day am. Mhm. maintenant euh, on peut peut on peut héberger de on peut héberger de ce qu'on li ñu mën a héberger rek mhm. va accréditer le maximum. Euh, mais hébergement bi nag souvent mooy nekk casse bi. Euh, ci centenaire bi maa ngi leen maa koy tenir kii ñi ñi ñu leen ah centenaire nag ak gàmmu du benn. déedéet il faut parce que centenaire bi tout le monde était à l'aise mhm. ñëpp tëdd fu baax kii mais gàmmu ça devient une voilà day day nekkaat beneen tournure. Mhm. donc les données von changer donc dina xaw a kii mais quand même comme je dis incha allah dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan góor-góorlu ci ba vraiment incha allah euh, ñu faciliter seen liggéey. Euh, vous mettre à, il y a la a, il y salle presse qui mhm. sera disponible pour la presse pour que ñoom ñëpp ñu mën a nekk dans des conditions de faire leur travail incha allah. lan ngay tàggatoo message bi nga xam ne di ko jox sa mbokk euh, taskatu xibaar yi gàmm gi pour ñu def couverture bu mucc ayib yenn dérive yi wala yenn yi tamit yi nga xam ne dañ koy gis si site yi cette année ñu éviter ko. alors le, le message c'est c'est très clair il y a pas de secret le khalife a, donné un thème très bien clair. Mm -hmm. ne dites que du bien autour de vous. Mhm. c'est-à-dire wax maanaam ñun dañoo war di waxante lu baax. Mhm. c'est-à-dire euh, c'est c'est c'est c'est c'est quelque chose que j'aime reprendre. Mhm. damay seetaan TFM ma dégg Fou Malade. Mhm. mu ne dañoo war di waxante lu baax. Euh, man waruma xaar ba am soxla ci Bouba rek woo ko damaa war a jékki-jékki rek woo Bouba Ndour nuyu ko nemmeeku ko waxante lu baax coupé. donc loolu c'est quelque chose qui que de de de cette émission là. et euh, pour ñun tamit looloo ñu war cest dire on doit toujours dire du bien c'est-à-dire bu ñëwee gàmm gàmmoo ñu fi mhm. c'est pas ay buzz c'est pas ay détails euh, non non non on n'est pas là pour ça. Mhm. on est là pour bien déterminé c'est le Mawlidul Nabi célébré à Tivaouane on se conforme sur les écrits de Seydi Hadj Malick on se conforme sur les recommandations du khalife général des mhm. qui a bien défini un thème pour qu'on reste sur cette lancée là vraiment ñu ngi ñaan gars yi loolu ñu mooy tudd film ak kilifa yi ci yenn position yi baaxul. Mhm. Euh, ñu ñu gën a góorgóorlu ci sàmm image yu kër gi. Mhm. Euh, parce que nag yenn yenn vidéo yi xëy ne bu ñu ko gisee du ñu neex. Mhm. Euh, mais nag ku nekk tele bu nekk wala organe bu nekk ak ak ak li ngay wër. mais daal fii dëkku Seydi Hadj Malick li ñu bëgg daal mooy lu rafet lu baax parce que bañ na ko ba bu ñu nee taalibe Cheikh dañ ñaan. Euh, day sanc day seet donc voilà mhm. alors il faut qu'on reste ci ci dynamique boobu ñun tamit que vraiment ñu ñu ñu jàppale ñu ci euh, sinon di di nuyuwaat di sant di gërëm bu baax suñu sëriñ suñu kilifa suñu xarit sëriñ Abdoul Hamid si moom al amin mhm. euh, di nuyu sëriñ Moustapha si al amin moom la moom laa tuddee ki mag ñuy wóolu mhm. donc nuyu njaboot gi yëpp nuyu kilifa gi kilifa yëpp ah, di di di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah